alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala xayril bariyati sayyidina muhammadin almabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim mbokki jullit yu baax yu teddi yi ànd ñun ci seen émission bu am solo bi ñu koy wax iqra yéen ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ñaan nuyoo boobu fekkee leen jàmm fekkee leen yokkute ci barki jàmmam bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama mbokk yi émission buñ ko tuddee iqra xel yëpp am na lum war a daj mooy saar bu am solo boobu xam ne borom bi subhaanahu wa taala moom la njëkk a wax ak jaamam bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu koy wax suratul alaq waaye ba tey ñu tuddee ko suratul iqra muy saar bu am solo boo xam ne moom la yàlla njëkk a wax ak seydina muhammad sallallahu alayhi wa saar la boo xam ne borom bi jàngale na ci ñetti mbir waaye njëkk muy wàcce saar wi dafa waajal seydina muhammad sallallahu alayhi wa di koy yar ci façon yarin bu nekk ci dind ci xolam lépp loo xam ne dafay salteel xol ba xam ne mat na di ko yar ba mu am ñeent fukki at ci diiram ñeent fukki at yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa di jaamu boromam bëgg lool di wéet nag wéet googu moo ko yóbbee muy dem ci xaaru ay raax di fa toog di jaamu boromam di fa toog di def ay ibadatam di wéet di def tafakkur ci boromam moom la ko imam Busiri radiallahu anhu di taggee ne ko alifu nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakasa nu jabaa'u nee na yow Muhammad da judd rek miin xeeti jaamu yàlla yépp di ko def waaye danga nga judd rek miin di fiix di tudd sa borom di def tafakkur ci moom ba borom bi subhanahu wa taala yëg ne mat na mu soog a yebal jibril mu fekk ko foofu waaye ba mu ko fa fekkee lim ko njëkk a wax rekk mooy iqra jàngal waaye ci saar bi rek balaa ñuy ak ci ci yàlla daf ci jàngale ñetti mbir jàngale na ci place bi nga xam ne fa la bad u nusulil wa yi amee ci Seydina Muhammad mooy place bi yàlla njëkk a commencé di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yebar Jibril ci moom muy def waasita bayna rabbihi ak Seydina Muhammad yàlla jàngale na fa loolu waaye jàngale na ci itam beew gi doomi aadama di beew ak féttirlu gi muy ci def ndigalu boromam ndax borom doomi aadama yàlla ko bind mu beew bu ko yàlla joxe warsak pour moom dépassé na nit pour moom dépassé na li ko yàlla bindee yàlla di ko jajji ci biir saar wi di ko wax ne ko kalla inna linsaana la yatqa an ra'ahu staxna waaye saar wi jàngale na xisaay ki texeaat yi ki nga xam ne mooy abi jaalin ñu ne asaqiyu la fajir la dafa texeaat yi nekk kàccoor nekk ku bàkkaarlu ndax daf doon tere seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nekkoon di julli wala muy def ay ibadatam mu di ko jajji di ko ko tere yàlla di ko jajji di ko won ci saaru yi tamit di wane ne ku jëm ci yàlla wala nga jóg am dogu pour am dara yàlla dana la boolente ku la koy xeeñ di la ci jàjji di la yàq surtout mu yàq sa der gàllankoor bu mu mën a def pa bur àgg mu mu jaar fa yàlla mu ngi ci nettali loolu di wax na ne araayta allasi yanaa abdan isa salla xanaa gisoo ki nga xam ne mu ngi tere jaam bi waxtu wuy julli mu di ko tere yàlla di jàngale loolu di si jàjji nettali si xissa boobu nga xam ne abi jahlin mu ngi ko doon def ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama waaye foofu mu am mu tuddee fa yonent bi lu am solo mooy waxut ko nabiyu waxut ko taggut ko ci yeneen tagg waaye daf ko tuddee abdu mu nekk jaam pour wane ne nit mënul tollu nenn ci yàlla ba passé nekk jaam loolu it war nañ ko ciy jàngee waaye fi mu commencé téere bi ak fi mu ko mottalee foofu moo am solo moo tax émission bi émission bu am solo la turu am solo lañ ko tuddee muy iqra ndax saar wi bi ko yàlla di wàccee dafa wax yonent bi ne ko jàngal mottalee saar bi ci jullil maanaam kon dangay jàng jëf mu woon la ne la mënoo jëf jëf ju àndul ak xam-xam kon xam-xam mooy njëkk jëf ji soog a mën a rafet soog a mën am ouverture ci mboolem loo ciy jublu waaye faw xam-xam lal ko borom bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa jibril ne ko wax ne ko iqra bi ko waxee yonent bi yonent bi def ko ma ana bi man jànguma mu sonnal ko ci façon sonnalin ba ko bëggee yonent bi sallallahu alayhi ko jànguma wax iqra bismi rabbika allazi xalaqa xalaqa al insan min alaqin iqra wa rabbuka al akram allazi bil qalam loolu rek la ñu jël ci saar bi te muy iqra bi mu ko wax pour wan la ne la lépp lu nit mën a def pour nga am ci résultat faw xam-xam lal ko ndax gis nga yàlla bi yare yaree yonent bi sallallahu alayhi wa yaru ba pare daf ko jàngal moo tax Seydina Muhammad di wax ni te addabu taallamu mooy da ngay yaru ba pare soog xam boo amee éducation bu baax ba pare nga jàng nag ba am xam-xam soog a nag pour walla ne la jëf ji xam-xam daf koy lal ak yaru ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko jàngal yaa Muhammad lan ngay jàng mooy téere yàlla bi waay boo koy jàng nag mubtadi an bismillahil jalil da ngay tàmbali jàng mi ci turi yàlla ndax lépp looy commencé te commencé woo ko ci turi yàlla jëf jooju barke du ci am yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne kullu amrin sibaal laa yabda'u fihi bi bismillah aw bilhamdulillah mu ne mbir muy commencé te commencé woo ko ci turi yàlla wala commencé woo ci cant yàlla mbir moomu barke du ci nekk moo tax yàlla bi muy wax yonent bi ne ko iqra waaye bismi rabbika jàngal ci sa turi borom bu màgg bi moom mi nga xam ne allasi xalaqa jamia al maxluqaat lépp loo gis ak lu mën a doon ki ko amal ko mooy yàlla kon nag jàngal ci turam waaye nag nga xam ne moom moo bind mboolem lu nekk ci àdduna awalim bi yëpp loo ci mën a soxla ki ko amal ko mooy jalla jalaaluhu subhanahu wa taala foofu liñ fay dégg rek mooy xam-xam solo bi ak doyo xam kon émission bu am solo bi ñu tuddee ko iqra liñ ciy déggee ñu nit mooy palaasu xam-xam la place la boo xam ni lu am njëriñ rekk lañ fi wax moo xam njëriñ li dafay dox ci wàllu adduna ñu mën ko méngale ak jàngale Seydina Muhammad wala njëriñ li dafay dem ci domaine bu mu mën a doon ñu dëppale ko ak alquranil karim loolu tax ñu tànn baat bu sell boobu xam ne yàlla moom la njëkk a wax ak yonent bi ne ko iqra ñu tuddee ko émission bu am solo bi kon kuy déglu ak koo mën a doon yëgal ne fii xam-xam bu doy nga fi mën a jëlee xam-xam buy jëriñ ngay mën a jëlee ci émission bi ndax xam-xam lu am solo la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa wax na ni anbiyaa yi nga xam ni yàlla daf leen tànn solal leen ulumul awwalina wal axirin ñoom ñëpp kenn mënu leen di donu fekk amoo xam-xam wa inna al ulama warasatul anbiya wala boog al ulamaau warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoom ñooy donn yonent yi waaye ñen ñooy borom xam-xam ndax da ngay mën a wax xaala ñu tuddee la borom xam-xam déedéet xam-xam ba dafay lamboo ragal yàlla ba doo wax waxi yàlla joo xam ne sa bakkan nga koy waxee doo wax waxi yàlla joo xam ne ala la tax nga di ko wax di jëndee ay yàlla yi allasina yastaruuna bi ayatillahi samanan qalil koo kenn du ko tuddee borom xam-xam koo xam ne boo ko fayee ne ko soppil ay yàlla yi mu faj mu mu nangu kooku tuddul borom xam-xam borom xam-xam bi mooy kan mooy ki ragal yàlla nekk ci moom moom la alquran di wax ne innama yaxsa llah min ibadihi l ulama waaye yonent bi teg ci ne inna al anbiya lam yuwarisu dinaaran wala dirhaman nee na borom xam-xam yi nga xam ne yàlla sol na leen xam-xamu nubuwa ñu leen di tuddee anbiya kenn du leen donnee ci dërëm kenn du leen donnee ci alal ak dinaar déedéet wa urisul ilma boo leen di donnu xam-xam nga leen di donnoo fa man aqasa bihi aqsan bi hassin waafir képp koo xam ne jàng nga ba jot xam-xam téye ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nga cër bu mat cër bu yëkkatiku kon xam-xam lu am solo la xam-xam boo koy sàkku yaa yaa ngi jaar ci yoon woo xam ni aljanna la la jëmee talabul tariqan ilal jannati loolu sayyidina muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam ne man salaka tariqan yaltamisu fii ilman sahala llahu lahu tariqan ilal jannati képp ku soobu ci yoon lay wut xam-xam sayyidina muhammad ne yaa ngi jaar ci yoon woo xam ne boo ko wàccul ëllëg aljanna nga jëm yal na yàlla ñu fa waaye ashaabul ilmi boroom xam-xam yàlla yëkkati na seen daraja ci àdduna yëkkati leen ci àllaaxira alquran na ko wax yarfa illaahu lasina amanu minkum wallasina utul ilma darajaat yàlla ne ñi nga xam ne jox naa leen xam-xam ak ñi nga xam ne imaan gu mat nekk ci seen xol yàlla ne na dinaa yëkkati seen daraja ci àdduna bi waaye dinaa ko yëkkati ëllëg àllaaxira moo tax borom xam-xam yi di wax ne ma aasa allahu bi jahlin qattun waaye wala asalla bi ilmin qattun nee na képp koo xam ne réer nga mënoo fexe ba tedd boo jàngul amoo xam-xam da ngay wër di làmbatu waaye boo amee xam-xam borom xam-xam yi ne yow doo masa torox ndax sa xam bi moo lay di la won yoon wi ngay jaar mbokk yi sidna aliyu karamallahu wajaawu moo tax mu dem mu ne booy ut ku am puukarewu util xam-xam toogal ak moom ndax kooku mu lay jox ay adilla yoo xam ni daf lay tegtalo yoonu njub mal faxru ila li alil ilmi innahumu ala alhuda liman istaada al adillau kullu imrin ma kaana yusinuhu wa jailuuna li alil ilmi ahdaahu bu la yàlla dimbalee ba amoo xam-xam yow noonu ñëpp ngay doon ndax lu nit rek pour yow warul ko mën a am añaan dafay nekk ci sa xol ndax bëggoo kenn ku dem ndax amoo yoon wooy jaar pour dem mbokk yi képp koo xam ne yaa ngi bëgg topp xam-xam toppal émission bii di Iqra li fi génn ci xam-xam ak yàlla yëkkati gi muy yëkkati ñooñu xam-xam noonu la yàlla yëkkatee émission bii ndax xam-xam képp lañ fi wax di ñaan suñu borom subhanahu wa li tax ñu tuddee ko Iqra yàlla na fi feeñ site bi nga xam ne moom lañ koy defee di Equivox TV yal na yàlla yëkkati ko comme ni mu yëkkatee borom xam-xam yi yal na yàlla yëkkati ko comme ni mu yëkkatee Seydina Muhammad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mboolem lan bi yaaw yi waaye yal na yàlla yëkkatee ko comme ni mu yëkkatee alquranil karim ci mboolem téere yi insha allahu taala yaakaar nañ ci kattanu yàlla ne loolu dana am ak ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bokk yi képp ko bëgg a déglu xam-xam toppal iqra insha allahu taala dinañ ànd ak yéen ci façon xam-xam yu wuute yépp ñu teg ko nag ci waxi yàlla ak waxi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yan yàlla def jàmm ci réew mi defal ko ñu dëkkee réew mi defal ko adduna bi yëpp wasalaamu aleykum ورحمة الله تعالى وبركاته كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب